Les dafa am solo parce que nous nekk rek ci njàngam boo xamee ni bu njëkk bi tey boo xamee technologie dafa am place importante ci suñu dund donc éducation tamit mënul euh, nekk euh, rade loolu moo depuis Covid 19 donc euh, quand tout est arrêté avons commencé télé-enseignement mais nous même ni tey même si amatul perturbation liée à la Covid nous war continuer de développer l'anglais à travers donc euh, le numérique le pour maintenant l'anglais numérique pour nous, il faut créer euh, un environnement ce qu'on appelle un écosystème il faut ñu créer que loolu moo tax tey ñu équiper ay élèves donc les phase de cérémonie euh, symbolique nous équiper élèves mais également les enseignants des tablettes donc objet yooyu objet connecté objets objet numérique yooyu dafa am solo loolu en fait euh, mooy tax que un environnement favorable pour que euh, tel enseignement mu nous une réalité mu ñëw tamit dooleel enseignement classique bi. loolu tamit je pense que responsabilité parents yi dañ engagé parce que xale bu ñu ko des tablettes derrière le forum, mag bo xam ne ni xam eh, tablette bi tablette bi c'est pour eh, njàng la waru ñu ko utiliser leneen donc la responsabilité eh, am une chance gis ngeen ni parents d'élèves ñu ngi tew donc ñom ñoy encadrer maintenant benen walu bi tamit ci suñuy service informatique Nous avons ay possibilité paramétrer tablette yi matériel bobu de telle sorte que mënuñu ko utiliser ci yenen fond bo xamé ni nii àndewul ak euh, en tout cas objectif bi. promettre woon na mu ngi koy def ci jëf di ko rafetlu lool di rafetlu aussi ni nga xamné dafa yaatal mbir mi parce que wayjuru ndongo yi ci lañu parce que comme bu ñu leen joxee tablette ñom dañ koy jël dal di koy jox seen doom jox ko sen dom il faut que aussi comme ni nga ko waxé ñu nit dinañu organiser wu pour informer wayjuru ndongo yi. pour que ñu dal di koy yemal rek cim njàng def naa loolu lu am solo la donc